xam mooy jaraafu dëkk bi dafa tiit ba taxaw naan ñun opposition bi te tey Sénégal yëpp xam ne moom mooy le maire de la commune de fan Point Amitié ñun ñu nekk ci position opposé wu ak moom moom mu taxaw di wax ñun opposition bi kon kooku tey mën nañu wax ne xelam dafa jaxasoo mu tiit ba tax li muy indi mu indi ko ñu dégg mu def ay accusations yu grave yu jëm ci wàllu processus électoral bi jëm ci wàllu li la révision exceptionnelle des listes électorales en disant que dafa gis ay nit yo xam fi ñoy jël ay certificat de résidence diko défar fi lool di lo xamni kenn du ko mu jall parce que tay ñun dañu am problème sax pour am kayit yoyu dañu am problème tay ji ay citoyens yoo xamni dañuy ñëw bëgg bindu si liste yi am problème yi ndax lan kan mo yilif état civil yi nek fi ci fan Point Amitié c'est le maire celui qui a délégué sa signature à deux officiers d'état civil Madame mom mo jël khatimam signature denk ko ñaar ñi nga xamni ne si ñoom ñooy ay officiers d'état civil mën len leen képp koo xam ñëw na fi diko wut andil len certificat de domicile na ngeen ko ko jox té non la wara démé parce que texte yi mo wax lolu nit ki nga xam ne si dafa ñëw dem ci délégué de quartier mu jox ko mu jox ko domicile am mu dem ci officier bi mu jox ko résidence am mais kooku lan moo si yoonu ñun ñi nga xam si tey ñoo nekk fii di opposition di waa APR lan moo si nekk yoonu waa coalition benn Bokk Yaakaar ban mainmise dañ am ci loolu pour mën ko def tey su fekkee dafa tiir wala mu jànnaxe ba taxaw di wax wax yoo xam tegu ko fenn dama ne loolu dañuy taxaw dindi ko ba mu set wecc te loolu du suñ kilifa yi nga xam si ñooy ay naataangoom ñooy taxaw wax ko ñun ñoo jàpp ni ñu ñooy ay naataangoom tey ngir taxaw weddi loolu parce que kilifa suy wax wax ji da koy jël wodd ko ñun on le respect parce que c'est le maire de la commune duñ wax loo xam ni ay kàddu yi loo xam ni ku ko dégg danañu ci xeeb mais tey kilifa goo xam ne da nga waroon am kàddu yoo xam ne boo ko waxee lu mu néew néew ku ko mënti dégg di nga ko rafetlu mais ngay wax loo xam ni. teguloo ko fen di accuser ñoo xam ne tey jii xëy na sax ñoo say say doom ñoo nekk ay morom nga taxaw di ci wax loo xam dara amu ci kooku ñun duñ ko mën a nangu. léegi nag li si des mooy ñun li nga xam ne si daf ko wax te dara amu ci dama ni ñun dañ koy topp ba mu sës parce que doo taxaw fii nga ne dañuy dañuy ñëw topp leen ba biir permanence APR ñu fay taxaw di signer ay résidence loolu amul na nañu génneel benn résidence boo xam ni. fii lañ ko signé je défie le maire Nous ñu ben benn résidence en xam d'un dañ ko remplir fii signé ko fi amul su amee na ko il faut que nous bàyyi di divertir les populations Nous baillons de divertir ñi nga xam si ñoom ñoo nekk fi point amitié dama ni les li texte yi wax dafa en matière de révision exceptionnelle maanaam Tay chambre gi des def liste électorale yi dafa am quatre options yoo xam ne citoyen bi quatre options ben bi lan la moy ce qu'on appelle les primo-votants ñi nga xam si tay liste bi buñ ko doon xol ñom seen tour nekku ci wala ñu am carte d'identité si ginnaw carte bi ñu def ci mention non inscrit sur la liste électorale mais koku non tay su ñëwé adresse am nekk ci commune bi koku kooku soxlawul dem pour résidence day ñëw rek dem dem dem dem dem ñu ñu ñu bind ko ci liste bi su fekkee koo xam ne la daf ko am ba pare adresse am nekkul si commune bi mu bëgg fi voter mais kooku day uti résidence vous avez une résidence jaar résidence bi en bonne et due forme vous avez une commission bi dañ enrôler jox option bi changement d'adresse nouvel inscrit vous bi ma wax carte si personne non inscrit sur la liste électorale nous sommes les nouvelles inscrits Nous inscrits. adresse inscrits. Nous certificat de résidence changement de statut Amna. mais changement de statut changement d'adresse. changement d'adresse, inscrits. modification nga par exemple je suis dans ci commune carte am adresse commune euh, carte carte électeur du voté fi mu ngi voté beneen commune léegi mu bëgg ni man dama bëgg modifier di voté fi mais koku bu ñëwee sur soxlu certificat de résidence da fay dem indi carte d'identité bi parce que adresse bi nekk ci carte d'identité bi baax na dañ koy enrôler directement ki nga xam si adresse bi nekku fi mu bëgg ñu changer ko kooku mooy uti résidence mais résidence bobu fu ñu koy utee mooy ci officier d'état civil té officier d'état civil bi mais koku c'est le maire qui est son patron c'est pas nous c'est pas nous kon lutax tax tey kilifa ko toll ni moom amul dara lu muy wax ñëw naan gis naa ni te permanence APR la ñuy defaree ay résidence yaakaar naa kilifa warta waxee noonu te beneen bi ci topp muy changement de statut mooy koo xam ne tey par exemple yow militaire nga woon nga bëgg nekk civil loolu option la soo ñëwee nga ne dama def changement de statut loolu mooy troisième option ñu changé la nga jaar fi nga war a jaar ñu yóbbu jëloo la ci ci ci statut militaire def la def la statut civil